maa ngi lancé daal appel sama mbokk youtubeur yëpp ñi xam ne ay xale lañ ay mineur lañ dangeen ngeen doon jouer xbet bàyyi leen ko xam leen amul avenir amul avenir nit ñi ko organiser ay lobi la yoo xam ne ay lobby maçonnique la ak ay lobi illuminati yoo xam ne ci monde bi lañ nekk am nañ am nañ doole lépp loo xamante ni dafay nasaxal jeunes yi du leen jëmee ci yoon bu baax ci loolu la ñuy dox ngeen xam ko bu baax muy loterie nationale sénégalaise muy pari foot muy xbet ñëpp ay milliardaires yoo xamante ne boo leen gisee ay kàkkaat yu bees tàq la ñuy dawal ay costume yu bees tàq la ñuy sol yor ay immeuble yu rafet yow ngay jël sa facture papa wala sa facture yaay ndox ñu fay loola ko nga dem jeu ko xbet nga perte mu dem dugg ci compte banque ñooñu ñooñ di gën nekk ay milliardaires ngay gën a torox di gën a toroxal say waajur mooy Mahfouz seen YouTube la yor Sénégal yëpp xam nañ ko siiw na jeunes yu bëri dañ koy suivre léegi bu defee vidéo vidéo bi di jeex mu ne ne gars yi may suivre ñëpp léegi code promo bi nangam la mu ngi suuf vidéo bi boo ko dugalee di nga mën a am temps xaalis di nga ko mën a gérer ci application mais ab jeune boobu nga xam ne mosul xam loolu code promo nga ne code promo mu lijjanti lan la gis ne application bu ñu installé la may nañ la 5000 wala 10 mille francs wala 15 000 pour nga commencé ko carte mu dem installé commencé carte Mahfouz am nga ci responsabilité bu rëy te xaalis boobu nga ciy gagné nag question de temps la yàlla dina la ko laaj te dama dama kaa cité parce que dama gis mu koy def bépp youtubeur yeneen youtubeur yi koy def yëpp. nañu xam ni maanaam li ñuy def xaalis bi ñuy gañ ci YouTube ak sponsor yi ñuy am ci seen chaîne yi fi muy jóge nañ koy bàyyi xel bu la nit nee dama la sponsorisé publicité ma yére yaa xayti nga jël publicité ma boisson nga jël mais publicité ma carte boo xamante ni cancer la pour jeunes yi ba pare mu nekk xaalis boo xamante ni dina ko di nga ko dem jaay mu dugg ci sa nga dem jaay ko mu nekk lekk nga lekk ko lekk gi transformé mu nekk deret dugg ci sa biir yaram deret boobu question de temps la di nga am soxna am ay doom doom yooyu deret bi leen alimenté mooy dret yi nga xam deretu carte la ñooñu après ci kanam tuuti dinañuy def yu bizarre yoo xamul nga naan kii fu mu ma topp man fan laa ko jure parce que li nga xamante ni moom nga alimenté sa bopp moo nekk loo xam dafa xaram loolu transformé bi nekk deret deret jooju nag moom moo transformé bu du ma du dugg si détails yi mais moo transformé ba nekk doom jooju kooku nag bu fekkee xaritu carte ci la sosoo pour nga teg ko ci yoon bu jub dana difficile loolu lañ ci bàyyi xel bu baax maa ngi lancé asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fàttali yéen ngi seen canal Galsen Tube la chaîne des youtubeurs euh, vidéo tey bi nag euh, xam naa dinañ ñëw ci benn sujet boo xam ni peut-être suñu ci wax ci euh, li nga xamante ne moom mooy chaîne bi waane nag comme dafay xew ci youtube te ñun ñu nekk ay youtubeur nekk ay formateur ci youtube liy xew ci youtube daf ñuy intéressé man de près ou de loin maanaam mu nekk loo xam daf ñoo sori wala mu nekk loo xam ñoo jege muy li nga xamante ni mooy carte gi nga xamante ni léegi mi ngi ci internet bi nekk ci YouTube bi euh, li tax ma ne nekk ci YouTube bi du YouTube bi directement mooy carte gi waaye YouTube la ñuy utiliser pour diffuser carte googu pour muy gën a tas ci li nga xam mooy réew mi li ma si gën a metti nag ba tax ma def ci vidéo bi euh, mooy xale yi nga xamante ni majeur guñ te nekk ci carte gi te mu leen di indil ay lor yu mag a mag a mag ba pare seen parents yi sax xam ni ñu ngi koy def ñu si bëri fu mu nekk nii seen doom nekk nañ ay carte kat yu accro carte te xamul seen doom yi dañuy carte loolu moo ci gën a garaw parce que xale yu ci bëri yoon nañ smartphone yoon nañ téléphone yoo xam ne ñu ngi dugg si internet bi téléphone yooyu ay application lañ ciy installé application yi ñu ciy installé daf ci am yoo xamante ne pour carte la moo xam muy xbet bi ñuy utiliser wala pari foot bi waaw léegi-léeg nga romb foo xam ne télé dafay nekk nga gis match football am nga gis xale yu wër fa fees fa dell àndatuñu ak seen sago bu ñuy seetaan ay match léeg-léeg da lay jaaxal sax boo comprendre da nga naan mais ñii supporter football kese football match club tubaab ñu leen supporter nii fekk na du supporter kese mais dañ ciy carte di xaar ay résultats moo tax kenn ku si nekk match bi nga xam da nga ci joué buy daw fii ak jeexul selon selon ski bi nga joué euh, li nga li nga li nga li nga misé ci carte gi ak euh, ni nga wax noonu la match bi di demee moo tax da ngay mel ni ku toog ci nen moo tax bu ñuy seetaan match léegi du ñu ànd ak seen sago gi. carte gu metti gee ko waral waaw loolu parents yi dafa baax tam ñu xam ko ñi ngi ci xam nag dañ may siraan dañ nekk ay jeunes euh, dèjà ñi ngi ci xam ne dañuy jouer carte li ma leen demandé mooy ñu xam ne amul avenir waaye yàq seen avenir lay def parce que conséquence yi moom mi ngi ci réew mi um kenn umbulewu ko temps yële si ginnaaw am na ku ngeen fi déggoon côté Pikine euh, mu am kenn ku jigéen ku doon gérer benn multi service ñu bokk fa di liggéey mu rey ko rey bu ñaaw bañ ko jàppee gis nañ ni motif bi ci ginnaaw carte laal na ci muy xbet parce que jël na xaalis bu bëri dem misé woon ko ci ay match perte xaalis boobu xamul lu muy def ba dugalaat ko ci kees gi mu def ay pexeem ba rey ndaw sa pour loolu bañ a feeñ far yàlla mbir ma mujj naa feeñ ba pare faat na ci bakkan kon faat na bakkan faat goo xam ni carte moo ko waral parce que ci alxuraan yàlla fu mu tuddee sàngara day tudd kart ci wet gi xam nga sàngara ñëpp xam nañu comme drogue la sàngara maanaam nit ki bu ko tàmmee naan day dem ba bu ko bu ko ko soxlawee dootu ànd ak sagoom mën naa sàcc wala mu rey pour dem naani carte tam noonu la nit ki buy carte di carte carte bu yàkkee day dem ba tey ci accro mën na rey nit pour carte mën na mën na sàcc pour carte te léegi sax loolu moo ci commencé bari xale yu bëri dañoo commencé di sàcc ngir carte fan yi rek dégg naa tey laa ko dégg information bi am na koo ci xamante ni euh, dafa doon liggéeyal benn nijaayam wala papaam mu jox ko xaalis bëri pour mu dem verser ko banque mu dem jël ci teq ci lu bari lu tolloo ñaari million c'est li wax ci information yi dem dem miser ci xbet ci ay mat bi mu miser ci carte gi xbet wala pari foot mu perte xamul lu muy def nag léegi mu jaale fa daw ak la des ci xaalis ba mu jigi euh, waa brigade de recherche ñoo ko mujj jàpp xam nga loolu yëpp je crois état bi war nañ ci jël ay mesures yu am solo waana sax dina ma jeexal ñoom luñ ci jëlee ay mesures parce que bu fekkee xbet la ñi ko moom ay tubaab lañ tubaab yooyu waa Russie lañ ay Russes lañ ñaari Russe ba ñett ñoo ko moom ñu nekk ay ñoo xam ne ay multimilliardaire lañ ay milliards yu bari lañ gagné ci carte gi nga moom lañ tas ci àdduna euh, donte nag ay milliardaire lañ ay Russe lañ waaye duñ ay Russe yu dëkk Russie lu tax parce que loxoor yu bari luñ def yuñ def Russie bañ leen fa doon bëgg a jàpp ñu daw fu nekk nii beneen dëkk bu nekk ci Europe foofu lañ nekk. làqatu fa am fa passeport dem dëkk fa à partir foofu nag la ñuy doxalee seeni business Xbet à travers le monde ci dëkk yi ko nangu am na dëkk yoo xam ne nanguwuñ Xbet implanté ko mais suñu dëkk Afrique yi nga xamante ni moom ay euh, néeg bu amul couvert la amul parentière lu ñëw rek dugg ah, moo tax lu ñëw dina fi installé wu ay nit facilité nañ ak lu si mën dem ay nit facilité nañ ko bañ bañ installé wu fi yàq suñuy jeunes ni ma ko doon waxee ci vidéo ba doon def ci beneen chaîne ma ne carte gi muy xbet ak parifoot ak application yi installé pour di ko def cancer la boo xam ne ñi ngi commencé di ko tas muy law ci xale yi boo xoolee tax ma ne ndax nguur gi dina ko fi jëlee parce que parifoot bi nguur gee ko moom lu tax ma ne nguur gee ko moom parce que waa LONASE ñoo ko moom te waa LONASE ñoo ko moom gouvernement bi moo ko moom léegi kon lu muy tekki ñaari ñi xam ñi yàq ñi yàq benn bi ay ay russe moom russe yooyu ay bandi russe parce que ñooñu ca biir russe yi lu xóor yu baree bare lañ fa def ba fu mu nekk ni ñemewuñ faa teg seen tànk comme ni ma leen ko waxee dañoo daw génn Russie dëkk faneen benn ñi nga xamante ne nag mooy Pari foot bi maanaam suñu mbokki sénégalais yi di Lonase ñoom ñoo recyclé wu ci xale yi la su ma nee recyclé wu tax moo wax ko mooy ñun bi ñu nekkee xale dañu doon gis paa yi nga xamante ne ñoo doon joué PMI dëkk bi yow dafa ay qu'est-ce que PMI qu'est-ce que PMI nga fay yoo xamante ni maanaam ay boo leen xoolee sax da leen di yërëm bu ñu la joxoon sarax ne la génneel sarax yow boo rombee paa yi ci qu'est-ce que leen ko jox ñu nekk fa suba ngoon di werante fas bi moo fas bee moo te fas yi kat ña ngay dawee ca France ñoom ñu toog ñu ne dañ ciy carte pour di gañ am na ñoo xam ne defe nañ ne gañe nañ ci parce que am nañ ci xaalis bëri te seen ne ci lañ nekk di ci nekk di ci nekk ba luñ joxee di dépense seen kër mënuñu ko am ndax lépp li ñu am carte nañ ko perte léegi perte ko kan lay duufal loterie nationale sénégalaise lay duufal seen i kees voilà léegi nag ñoom dem nañ ba xam ni paa yooyu ñu si bëri génn nañ ñeneen ñi dem nañ ba mënatuñu jouer parce que yoratuñ luñu jouer ñeneen ñi dem nañ ba daanaka génnatuñ nekk maanaam daal ñu ngi si yeneen situation yoo xam ne FR4 sax mënatuñ ko léegi nag te ñoom bëgguñu seen business bi dee ñu recyclé wu nañ la ñu recyclé moo dañuy adapté wu ci jamono li mu laaj xam nañ jamono mbirum internet la jeunes yëpp ñu ngi ci internet bi ñu daal di nag infiltré wu ci application yi nga nit ñi duñ xam ne yaa ngi carte soit nga dem ci kees bi di jënd ni di xam wala nga yónni ab xam ne yaa ngi carte voilà yooyu ñu daan bind ke PMI yi léegi nag ñu def ko noo xamante ni ku mu neexee nga carte te kenn du xam ne yaa ngi carte parce que ci sa application lañ la koy defal ñoom nag si seen mbir bind nañ ne xale bu ëpp dix du ko joué waaye loolu mooy théorie bi li nga xam ne mooy pratique bi mooy xale yi amul dix-huit ñoo ëpp ñu koy joué ci Sénégal loolu mooy réalité bi te filtre ak contrôle bi ci war amuñu ko parce que magum jëm moo xam ne am na trente-cinq ans am na quarante am na cinquante ans xam na li carte lim bon yëpp mu dem ci carte yi kooku mënuloo ko dara mais xale yi nga xamante conséquence bi ci ne xamaguñ ko ñu jël defal leen ko ci ay ñu koy installé seen téléphone yi di carte bu seen parents yi duñ ko xam duñ ko yëg dañ leen jox facture courant pour ñu fay ko ñu dem jaar dem carte ko wala ñu jox leen facture ndox pour ñu fay ko ñu jaar dem carte ko élèves yi si bëri fu mu nekk nii seen fay seen fay école seen parents yi joxatuñu leen ko lu tax parce que da leen ko jox ñu ñëw ne la wadd na wala def nañ ko fee fekk dañ kaa carte ci Xbet perte te seen parents yi duñu xam dañuy carte ci Xbet man li ma si mën mooy lii kenn nag réew mu nekk nag boo fa dëkkee am nga droit soo fa gisee loo xam ne naqari na la comprendre naqari na la gënumaa baax kenn nag moo tax ma koy wax gënumaa jub kenn kenn ku ne am nga say défaut waaye lii lu ma gis ci réew mi la mu naqare ma dafa jëmee jeunesse bi baaxul am naa droit comme sénégalais ma naqarlu ko sama biir xol comme loolu moo gën a tuuti am naa possibilité la ma wax ko ma def ci vidéo wax ko ce qui fait que même bu doon benn dégg na vidéo bi ma wax bàyyi carte baax na su fekkee tamit kenn dégg ko man def naa li mu war a def mooy gis naa ko naqare na ma jàmbat naa ko li si des nag kenn ku ne yaa jël sa responsabilité parent bu nekk na nga xam ni maanaam responsable nga sàmm nga sa doom yi nga xamante ne yow yaa ko demandé yàlla mu jaarale ko sew indi leen fii ci suuf si responsable nga ci li ñuy dugg li ñuy génn li ñuy def da ko war a contrôler képp koom yaa ngi may siran da nga am ay doom yoo am diggante quinze ans dix huit ans vingt ans vingt deux ans seen ab seen téléphone yi del contrôler lan lañ ciy def li ñu ciy dugg ak ñu ciy génn xale doo ko jëndal bu fekkee da nga am doom boo xam ne mi nga am dix sept ans quinze wala dix huit ans di jàng nga jëndal ko smartphone buy jar soixante quinze mille wala cent mille franc jëm kaw léegi ba pare jox ko connexion def wifi ci kër gi muy connecté wu normal ba pare bu génn itam di am connexion li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy réseau mobile. ba pare benn contrôle defoo ko ci loolu lépp lu mu ci def am nga ci responsabilité loolu mooy dëgg yi parent yi ñooy responsable seen xale yi fii ak ñuy majeur te ñu si bëri li seen doom yi di dugg di génn xamuñu si dara xale yi li ñuy def ci téléphone application yi tas na mu réew. léegi nag li si jëm ci côté YouTube bi maa ngi woon ñëpp ñi nga xamante ni sama ay mbokk youtubeur la ñu nekk senegal parce ay youtubeur yu mag youtubeur yoo xamante ni am nañu ay chaîne ay chaîne YouTube ñi ngi business YouTube ñi ngi business leneen lu dul YouTube soxlawuñ di defal promotion xbet ak Paris Foot pour di am xaalis nga dem waa xbet ne la joxlu man contacté na ay yoon yoon ñu bari ñoo xam dañu bëgg ma leen defal promotion xbet boo ma ko waxee automatiquement du ma leen du ma ko def de dama naan la sëñ bi lii carte la te carte dafa xaraam te ñun ay jullit lañ waaw bu ñu seytaane poussé bañ koy def war nañ see jéem a génn bu ñu ko deful war ñu see jéem a génn te bépp xale boo xam ne pousse nga ko ba mu dugg ci expert di jouer te xamu ko woon exemple bu simple bu may joxe mooy Mahfouz seen YouTube la yor Sénégal yëpp xam nañ ko siiw na jeunes yu bëri dañ koy suivre léegi bu defee vidéo vidéo bi di jeex mu ne ne gars yi may suivre ñëpp léegi code promo bi nangam la mi ngi suuf vidéo bi boo ko dugalee di nga mën a am temps xaalis di ko mën a jël ci application mais ab jeune boobu nga xam ne xam loolu code promo nga ne code promo mu lijjanti lan la gis ne application bu ñu installé la may nañ la 5000 wala 10 000 francs wala 15 000 pour nga commencé ko carte mu dem installé commencé carte Mahfouz am nga ci responsabilité bu rëy te xaalis boobu nga ciy gagné nag question de temps la mais yàlla dina la ko laaj te dama dama kaa cité parce que dama gis mu koy def bépp youtubeur yeneen youtubeur yi koy def yëpp. nañu xam ni maanaam li ñuy def xaalis bi ñuy gañ ci YouTube ak sponsor yi ñuy am ci seen chaîne yi fi muy jóge nañ koy bàyyi xel bu la nit nee dama la sponsorisé publicité ma yéer yaaxaay nga jël publicité ma boisson nga jël mais publicité ma carte boo xamante ni cancer la pour jeunes yi ba pare mu nekk xaalis boo xamante ni dina ko di nga ko dem jaay mu dugg ci sa nga dem jaay ko mu nekk lekk nga lekk ko lekk gi transformé mu nekk deret dugg ci sa biir yaram deret boobu question de temps la di nga am soxna am ay doom doom yooyu deret bi leen alimenté mooy deret yi nga xam deretu carte la ñooñu après ci kanam tuuti ñuy def yu bizarre yoo xamul nga naan kii fu ma topp man fan laa ko jure parce que li nga xamante ni moom nga alimenté sa bopp moo nekk loo xam dafa xaram loolu transformé bi nekk deret deret jooju nag moom moo transformé bu du ma du ma dugg si détails yi mais moo transformé ba nekk doom jooju kooku nag bu fekkee xaritu carte si la sosoo pour nga teg ko ci yoon bu jub dina difficile loolu lañ ci bàyyi xel bu baax maa ngi lancé daal appel sama mbokk youtubeur yëpp ñi ngi xam ne ay xale lañ ay mineur lañ te ngeen doon jouer xbet bàyyi leen ko xam leen amul avenir amul avenir nit ñi ko organiser ay lobby la yoo xam ne ay lobby maçonnique la ak ay lobby illuminati yoo xam ne si monde bi lañ nekk am nañ am nañ doole lépp loo xamante ni dafay nasaxal jeunes yi du leen jëmee ci yoon bu baax ci loolu la ñuy dox ngeen xam ko bu baax ay tyran ak ay sàcc yu mag ñoo nekk ci ginnaaw application yi ay milliardaires yoo xamante ne boo leen gisee ay 4x4 yu bees tàq la ñuy dawal ay costume yu bees tàq la ñuy sol yor ay immeuble yu rafet yow ngay jël sa facture papa wala sa facture yaay ndox ñu fay loola ko nga dem jeu ko exhibet nga perte mu dem dugg ci compte banque ñooñu ñooñ di gën a nekk ay milliardaires ngay gën a torox di gën a toroxal say waajur loolu yaakaar naa képp ku am xel tey réfléchir doo ko def jërëjëf